wa dakdakatil jibaal li haybati wa sabaxa raadu bi xamdi walmalaayika min xiifati wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad salaatan taxtax lana biha ababa rida wa taysir wa tuxliqu anna biha ababa char wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaish wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira أنت يا إلهي ولينا فنعم المولى ونعم النصير أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الخميس ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور wa na naqulu lakum assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla fu ngeen mën a ne di ziyaara mbokki jullit yëpp di ziyaara kilifa diine yi ci réew mi ak kilifa aada yi fàttewuñu kenn di ñaanal yàlla waaye nekk ci tolof tolof yàlla na leen ci yàlla génne ñu nekk ci wéri di yàlla na leen yàlla may wér waaye ñi nga xam ni dañoo nekk ci xat-xat yi tere yàlla na leen ci yàlla génne bi jaahi sayyidil wujud ba tey ñuy ñaanal ñi nga xam ne dañu nekk bitim réew di daani seen doole di wut lu ñu indil seen njaboot ak seen réew yal na leen yàlla yombalal lu ñu indi seen réew ak seen njaboot waaye su ko defee du ñu dañ toujours di ñaan ci suñu réew mi jàmm yal na fi yàlla saxal jàmm defal ko mboolem julli defal ko képp ku yeewoo ci réew mi yal na ñuy yàlla defal xéewal bul ñu xewal yu baawaan yu naat bi jaahi sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu dellu si incha allah fàttali askan yi numéro yi door dugg ak ñoom ci waxtaan wi euh, ñu fàttali bu dee waa Sénégal mën nañu ànd ak ñun ci 88 628 vingt 22 88 628 22 22 bu dee waa Sénégal waa bitim réew ñu ànd ak ñun ci 00 221 33 841 22 99 ñu baamtu ko 00 221 33 841 22 99 waaye du tey ñu fàttali askan wi euh, numéro internet bi nga xam ne bi nit ñi dañ ci teewoo di ci yónnee seen i laaj bëgg ñu leen ci indil ay leeral muy numéro bi nga xam ni. moom la ñu mën a duggee ci wàllu internet bi muy 3W ngay def mooy def que groupe Futurs Médias def point sn euh, nga def tiire def firigent incha allahu bo yónnee sa ci internet bi incha allah nañ ci jot ñu bamtu ko mooy da ngay def 3W groupe Futurs Médias nga def point sn nga def trait def firigent incha allahu loo ci soxla eh, xam naa ni dinañ ko gën a indi ci écran bi ngeen gën ko gis bu baax lu ngeen ci soxla ci wàllu firgéent bu ngeen jaaree ci internet bi da ngeen ko am waaye su ngeen jaaree ci ala kulli xaal eh, ci micro yi bu ngeen wootee incha allah dinañ ci indi ay leeral. waaye balaa ñu sori ci mbir yi dañuy jukki bataaxal yi ñu fi fekk xaarandi askan wi ci numéro yooyu ñu wax léegi. Euh, lu ci waay soxla yittewoo ko bëgg bëgg ko laaj incha allah dinañ ci indi ay bayaan mbokk mi nee na dafa gént gént gu ko jaaxal euh, nee na dafa gént daal euh, ku yor nekk ci boppam di ko teeñ maana ku ñuy teeñ ci bopp maana koo xam ne kii boppam dafa am teeñ keneen di ko teeñ xam naa loolu la bëgg a wax def boppi neen maa fii ci xayra ñi di la teeñ kazalika kilaahuma ala xaddi sawaai fi lxolmi ma fihi xayra gént ñi di la teeñ baaxul ki ñi teeñ baaxul wa ala kulli xaal boppi neen bi it amul yow waaye ala sabilil misaal dañuy farataal di wax ni nit ki su génte yi mel noonu na dajale ay taalibi ci këram defar ndekki jox leen mu nekk sadaxa boo xam ne bii sarax bu am solo la bu jara bàyyi xel nañ koy bàyyi xel di ko def ndax am na solo lool euh, beneen bi ki mbokk mi nee na moom it dafa gént euh, ànd ak benn waay boo xam ne mënul dox waaye li koy yem daal mooy police dafa ñëw di leen dàq waa ji jékki-jékki rek daal di daw te mënul woon dox maanaam amul woon ay tànk ci biir loolu it mu jékki-jékki daal di naaw mu jaaxal ko lool. bari ana lu raw xaan wala yi mel noonu di soppaliku jëmm nit ñëw ñëw teewlu la te doo ko xam waaye balaa ñu ñëw ci ci bayaan boobu ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam sëñ bi maa ngi ziare. yàlla yàlla nangu ziar. amiin amiin yéen dafa amoon gént bi ma doon laajte. waaw bismillah. man dama dama géntoon àjjuma bee paas la woon ma gént bi jotee ca daal xeex. am mhm. na lu ko waraloon nag moo taxoon ñuy xeex. yaa ko waroon xeexal dafa am benn ah sama jëkkër. Mhm. laa doon xeexal daal ba xotti yëreem. Mhm. léegi fi ma xottee yëreem nag ci laa ñëw nag ci kër gi bi ma ñëwee ci kër gi sama goroog sama rakku jëkkër beeg sama magu jëkkër bi. tombeeg maa ngi togg euh, reer la maa ngi togg cere xam naa ne cere ñeex la daa wax xaw ma ñeexu lan la xaw ma ñeexu yàpp la xaw léegi mi ne ma naa ko jox euh, rakam bu jigéen na naa ko ci tubal ci cere ji mm-hmm. léegi ma ne ko yow mënoo toog ba ma euh, kii mënoo ma yekk reer benn yoon moo ma di la tubal mm-hmm. léegi ba mu paree magam bu góor bi na ko waroon a def sax mm-hmm. balaa ko tubal waaye li ma ci a jaaxal ci cere ci gént bi dama kere bu ma ko géntee suba gi laa jotee sama jëkkër daa am ak moom léegi ma doon laajte nag lu mu tekki ak mosoon naa fi laajte nag benn jour. Mhm. na dama géntoon jox Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa loxo waaye loxo càmmoy laa ko gént laa ko jox daal. Mhm. te may dégg ñu ne joxol joxe loxo baat waroo jigéen du jox góor loxo. Mhm. loolu taxoon nag ma doon laajte loolu ba xam. dama ko mosoon a waaye dégluwuma dégguma tontu bi. baax na. shukran wa ala kulli xaal jërëjëf incha allah dañ ci ñëw léegi incha allah ginnaaw balaa ñu ñëw ci kooku ñu ñëw ci kii woote woon sànq ne waa ji dafa naaw te mënul woon dox bari aana lu nit di gis nit ci yenn xaali yi yaakaar ne huwa wa fil xaqiqati laysa huwa te du moom yeneen mbir la yu soppaliku di doon am neneen nu ñu mel mën na doon rawxaan mën na doon quddaam mën na doon jinne mën na nekk euh, maa yusbihu zalik lu ne mën na ko doon kon ñu bàyyi ko xel euh, kii nag soxna si moom nee na dafa gént di xeex ak borom këram ba xotti yérem waaye balaa ñu ñëw ci moom incha allah ñu jël ki ci ligne bi te ñëw euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi la ziyaara sant bu baax alhamdulilah sëñ bi dama amoon ñaari gant yu ma bëggoon ku ma ko. waaw bisimilah. waaw bis njëkk dama dama gënt benn ku jigéen kooku xam naa ko nag quoi mu jox ma kayit kayit bu weex. Mhm. mais bi ma joxee kayit bi après ci biir gënt gi dama gëntaat euh, ñëw Sénégal mais bi ma ñëwee Sénégal euh, maa ngi wàcc ci benn baraag. Mhm. baraag bi kenn dëru ko suuf la. Mhm. ma jël ratu di ratu di ratu suuf si danaan ki ma jox barab bi eh, néeg bi eh, bu may ñëwaat naa fekk nga dër ko ma koy wax nii. bi mm-hmm. si des dama mm-hmm. gënt segg. Mm-hmm. dama gënt segg segg. segg. waaw bi ma ñëwee dama ñëw si néeg bi fekk mu ngi nekk ci benn cage bu ndaw segg bi nekk ci biir mais dafa jékki-jékki segg nekk segg bu mag daaji cage bi maa ngi ci ñu génnee après dafa ñëw di foo ak man. Mhm. waaye ñaari gént yooyu laa doon laaj ku ma si jàppale. jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah balaa ñuy ñëw ci kooku ñëw ci soxna si nga xam ne moo ne woon dafa gént di xeex ak borom këram ba xotti yërem التخاطل بين المرأة والزوج في الحلم يؤدي إلى تفاهم عظيم